situation bi day continuer ci liñu déssé fi ak mois de février. alors que kenn ñaanuko qui a intérêt la question est pertinente. qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'élection à, ce que ce climat de terreur continue. Mhm. Maintenant la laa koy redéfinir. qui a intérêt à ce que situation bi continue. Mhm. mais élection pour man dafa faut a am dans les cinq mois. et ça voudra dire que situation bi dinañ ko maîtriser nañu ñaan juste que lii parce que bu continuer ni ça veut dire que ñun ñëpp kenn tout le ga. Mm-hmm. et lii bu bu ñu la commencé attaqué ci biir transport en commun ça veut dire mën nañ la fekk sax ba sa biir kër alors que ñaanuñu loolu continuer ah, man de sama position la waaw voilà lu ne nag mën na nekk mais bon nañu ñaan rek jàmm am waaw aywa <laughs> ah, ah dañu koy nuyu dalal ko. waaw <laughs> noo def le représentant du peuple est là. voilà ah, waaw bonjour. noo def. maa ngi nii rek. waaw nuyu naa ñëpp nuyu Simon. dina fay bu baax Fofana ak Fabrice ak euh, Yaas. ak euh, Mambay xam nga xam nga Simon lim wax loolu la quoi. nit mom yàgg naa wax nañ leen génn ci mbedd mi. Mhm. liiral na leen démb ñaari publication yi mag yi 2000 2000 mille. deux mille mhm. deux waaw waaw euh, mhm. juin. mais xam nga temps est passé ñu wax ay nerf nerf bi nervi nervi nervi nervi. voilà. man benn mbir la japp nit ñi dañoo dem ba dañoo ragal a wax parce que ni ñuy terroriser gars yi léegi. Sénégalais yi lañ terroriser. ñii ñu leen terroriser ci mbedd mi ñii itam ñu leen terroriser ndax kaso yi convocation xam nga asma. Mm. dafa am benn grand nee na ma boo demee télé ak rajo bu ko wax ndax ay dëkkandoo lañ. Mm. nervi yi état bi di miimal. Mm. di leen solal ay yére policier ak ay yére gendarme naa non dañuy civilu du dëgg. Ah man maa am ay ay preuve man. ah oui denc ay photo yore bagage toog nit convoqué ma ne ma yow yaa ne ay nervi dañuy ànd ak police maa ko wax jour élection locale yi le mm. yii passé dafa am ay wuyu kenn ki mu ngi dëkk ay numaan croisement sam jéggi mm-hmm. koo xam ni <laughs> da daan bëre mm-hmm. bokk naa ci ñi ko njëkk a yóbbul seen biir kër Mm-hmm. Simon. 75 mm-hmm. mille francs ca jamono. Mm-hmm. ak 57. mi ngi may seetaan. pour mobilisation wala. waaw non soo amee dëkkandoo muy bëree rek ñu ne doo ko may ay. tisane rek jàppale ko jàppale ko. keneen ki fiic miij la dëkk fiic miij. du fiic miij Ndakaaru di fiic miij Géejawaay. très bi ne ma non non yooyu xam nga dëkk amul dëkkandoo. fetel lañ jël. ñëw suma kër. Mm. jouru élection. Hmm? gaañ fa nit ay jigéen nekk fa di togg jour élection xam nga candidat bi këram rek. ñun ñëpp ñu nekkoon ci école yi boobu ñu fekk ñun njarka jaañ. c'est vrai. fetel dóor jël nit ci suñuy dëkkandoo ñu yóbbu ko hôpital dalal jàmm. ah oui. c'est même wuyu damay dem seen grand place nii damay nuyu ñëpp. dama koy tëb. gars yi ne ma dee ko nuyu ndax kilifa nga léegi ma ne ko kii bandi la ñu may seetaan. fekk ay jigéen dóor leen. dóor fa ay balu fetel ñun ñu ñëw jàpp leen police ba ba pare li gën a doy waar police jàpp leen dugal leen ci biir oto bi dugal leen ci oto ba pare ñu wax a wax wax ñu yóbbu leen ba pare libéré leen Mamadou Fofana. Mm. cinq mois après l' incident. Mm. man yàlla dogal nekk naa fi maire. ci bis boobu noonu ñu defee jëkk ko wëyu mm. ministre de la justice d'alors maître Malick Sall di inauguré grande salle tribunal tribunal grande instance bu Guédiawaye. Mm-hmm. waaye ci autorité yi la yàlla di dogal ma bokk ca. ces de mêmes wuyu ñoo yoroon sécurité. ah bon. ma ñëw nii ki dëkk fii mii ñu ngi may seddaan di ànd ak sama benn xarit ñoo boo grand place te grand place chaque jour dama fay toog di reer reeru mbedd. damay nuyu ñëpp tëb ko. ces mêmes wuyu mais ñooñu ñoo ko jëli ca cortège ñëw indi ànd ak policiers yi ñu dem ca tribunal ba def visite def tout tout tout ay wuyu yu ànd ak ñoom ñu wax ne amul ay nervi yu ànd ak police nañ ma woo. man nañ ma woo ma indil leen ay photo wala yóbbu leen ba ci kër wëyu ne leen suñuy dëkkandoo ñoo ne bu ñu leen porte plainte ndax yóbbu sa dëkkandoo police xaw ma lan ak yoon dugg na béykat Samba Kodu gi ginaar rek keneenam ay wëyu. révélation de taille réew mi jaxasoo tor te kenn ku ci nekk yaa ngi bëgg faire porter le chapeau sa morom. li ñuy ñaan yàlla rek mooy jàmm na fi am. sa morom. <laughs> ah ñoom kat police bu ànd ak kii wëyu foofu jàmm dina fa mën a am. te yow mu leer na leen ni ki ki ki. kii du policier. Mm. kii du policier ñoom nee na dañoo civilu waaw maa ca seppi ñaar ñoo ñu nga xam ne maa ngi ñoom ñoo dëkk. léegi comme que ñoom ku ne mbërit ñu ne ñu ne dañ laa convoqué te man yàlla dogal na ñooñu bëggoon naa leen yóbbu police suñu àkkoon ñëpp ne du ci dal waaw léegi bu yàlla dogalee man nag ñu faf yóbbu ma police mm. ñu ne ma kaay indi preuve ñooñu danañ ma fa fekk aywa incha allah merci buñ ma tëjee yóbbaale leen

fii mi tollu dal luñ la wax dangay dangay xool nii rek te maanu ci toog di xol. kase foofu la réew mi tollu. kon te tollu nañu fii da yàlla xam doy na ay te ñu yëg ci kaw turbine yéenekaay bi tey kan moo yëg ci kaw turbine bi nee nañ ay samba booy tribune yéenekaay nee na juróom-ñaar ci ay agresseur ñoo yéeg tey ci kaw turbine bi laaj ma lu ñu def benn bus ca Yaraax la ñu song dóor sa cocktail molotov yaa ngi ko doon expliquer sànq lan mooy cocktail molotov boo ko sànni ak nu muy def dégâts yi muy causé dégâts yooyee muy causé jàppale ne kon ñaar ay soxna la lakk ci biir bus bi lakk ñoo ca faatu lakk ci biir bus bi gis ngeen bus bi ni mu doon jax-jaxe ba léegi je pense kenn identifié wu leen kenn identifié wu xanaa lakk gi daa metti xanaa lakk gi nag degré bee sori parce que yenn koor boo lakkee ba def dóom noonu doo neex identifié loolu yëpp te dinaa ko tey jii si journée bi dina leer waaye nag blessé yi ana ñu Yacine ana blessé yi ana blessé yi ñiy jële ay gaañu gaañu lañ wax si bus boobee mm, blessé fan mooy place am ba war a kër ga hôpital wala hôpital l'hôpital waaye du daw yéene kaay groupe des médias nee na blessé yi de moom kenn gisuleen nag wax fa dëgg neex yàlla dañ leen di wër comme ay xale yu réer ba tey turbine yéene kaay moom mooy moom moo koy laam-laamee quoi di jéem a comprendre quoi Antoine Félix Diome nag nee na moom fii amul lu ñuy amul lu ñuy laam-laame hmm. amul lu ñuy nëbb nëbbal nañ jaar ci digg bi lii fu mu nekk si tànk yi ñuy dox nii tànk yi ñuy seet nii du ñàkk bu ñu ci tegee loxo ay terroriste lañu te nag bee boo ñu xam ne bu ñu leen tegee loxo dinañ dund alxatiir fii ci réew dana tar dina tar lool si ñoom. caw sa xiir lay doon daal. alxatiir caw sa xiir. <laughs> <laughs> dinañ dund la nga xam ne nii <laughs> yàlla bëri na sutura amul nag ba pas de témoignage de passager ñu nekkoon si bis bi gis ñu kañ ñu daw nañu. <laughs> yaa ngi dama ñëw mu ne ma waa léegi ñi blessé anañu. dañoo daw di. léegi ñi blessé wul nag anañu waa léegi bu fekkee ñi blessé ñoo daw léegi ñi blessé wul kay dañuy daw tamit. waaw dañoo tiit ba daw Kayram nag gis nga ko. Kayram est-ce que non ku blessé. day talawut. ku koy wàllu ku ko wàllu. waaye ñi blessé wu wàllu gisuñu blessé ya. ah déet est wër nañ leen. ah <laughs> ana est-ce que néewuñu hôpital ah. waa nañ leen see. nañ leen sa kàccat seen yoo nekku si ñoom waa Pastef. bu fekkee ah, Pastef mi ngi existé ba léegi parce que ñoom bind nañ seen communiqué. Hmm. ah mi ngi existé. dem si yàlla Pastef wala Pastef nee nañu. nañ leen sa kàccat.

ma ma nii. pourquoi loolu di si am. moom monsieur le maire ñoom seen parti bi demul élection dekkal ngor lañ dem ak Benno Bokk Yaakaar mosoo dégg APR. Ah, parce que problème nga esprit la. Hmm. non dama ni ay affaire xol ay wa ma ni ñun amuñ parti. ñooñu am waaw Pastef man awma parti. mouvement Sénégal mooy sa parti. waaye man yi man dama am parti. mouvement la. wuy ma la bokk léegi Sénégal la bokk. wuy ma esprit bi la. esprit la justement. waaw après mu dugg ci biir nekk la foi ngëm-ngëm. Ah. imaama googu. waaw ah. gaa yi ni gaa yi bii lii dañ koo gëm mais ay indi ay. mooy philosophie. philosophie lañ lay dund. voilà xam nga da nga ànd ak mhm. ma ni comme bu gaa ngi sa bopp ñoom philosophie. Mhm. ma ni ñun demuñ préfecture ba léegi xamuñ sax fu ñuy defaree kayit yi ñun. xam ñoom sax nee nañ defar nañ kayit dañ naan tas nañ ko tas wutuñ. nee nañ ñoom daal dañ leen sa kàccaat. tas ko ci kayit taxul faa tas sa xol nit ñi de. voilà. loolu la. yëkkali tas ko ci yéen a kaay ba tey tribune yéen a kaay dikk na de neen wax fa dëgg neex yàlla bilan ba yokk na nag ñeent doo lekk na si ñu nga xam ne ñoom ñoo faatu wala toll nañ ci ñeent am ndaw bu nga xam ne bal la ko sox foofee